xale yi ñëpp naan exactement une heure quarante sept du matin mooy doog a jot ñu àndandoo ak yéen en direct tey euh, mooy ndorteelu saison bu bees bu quartier général euh, ñu buggoon ko oyofal rek annoncer un peu euh, couleur yi ci télévision Futur Média premier grand talk show fii ci réew mi loolu c'est grâce à vous téléspectateurs grâce à vous internautes nga xam ni fu ngeen mënti nekk ci àddina yéen a ngi àndandoo ak ñun lu mu guddi guddi da di xëdd di seetaan jotaay bi la nga xamee ni bi ñu ko tàmbalee ak léegi mu ngi bëgg a yàgg appelle QG 2019 la euh, moo xam Facebook Twitter Instagram ak it euh, suñu site internet di sn émission bi itam da ngeen koy am en simultané tous les soirs euh, ci King FM 99.4 on va découvrir d'autres personnalités plébiscitées par internautes yi depuis que ñu tàmbali jotaay bile ndax kenn ku ne am na yoo xamante ni bëgg nga koo laaj kilifa wala autorité ci fànn yëpp ñun itam itam euh, ñu def tout ba mu ñëw ndogu ak yéen xëdd ak yéen mais en même temps waxtaan euh, ci yu bëri yoo xamante ni dafay jëmale euh, fi nga xam ne ni moo di Sénégal kanam même maître Abdoulaye Wade il a été plébiscité par internautes yi loolu itam ñun dañu ko rafetlu ñu ngi jéem nag di waxtaan ak équipe yi nga xamante ni ñoo àndandoo ak moom ndax moom suñu maam la te defe naa bis bu ñëwee dina doon waxtaanu maam ak ay sëtam lu sénégalais yàkkamti loolu itam ñu ngi ciy dox ay euh, jéego euh, di ci gërëm bu baax équipe bu PDS euh, nga xamante ni ñoo yore communication euh, parti démocratique euh, bu Sénégal di xalaat suñu benn jigéen di Nafi Diallo moom tamit gis nañu taxawaayam ci maître Abdoulaye Wade daañu jéem bu ko defee recevoir ko incha allah laata ñuy jeexal saison quartier général 2019 Ndiku Coro Sarr Maana Coro Sarr Bafu Coro Sarr maamam lañ daan jam muy ñëw xam naa ni bu ñëwee ci émission bi fee laay di ko tagg ndaxte noonu la ko sénégalais bëggee moom ñoom euh, maître Abdoulaye Wade nañu découvrir keneen euh, euh, koo xamante ni plébiscité toujours par internautes et téléspectateurs pour mu nekk invité quartier général maître Madické Niang moom xam naa bis bu ñëwee dina fi toj rajax. non moom le vingt le vingt huit lay ñëw. incha allah. parce que bu teelee ñëw après invité yi bu ñëwee duñu am fuñ toog. dëgg la parce que il faut pas mu rajo toj ko mooy ñëw vingt-huitième jour bi bu neexee mu toj bu ko neex bul xëyee ñu wari dëgg la de waaw mais parce que moom dafa gagné dafa dafa dafa gagné en en sympathie mais aussi en sincérité mhm. euh, le maître Madické Niang est un avocat mhm. c'est-à-dire qu'un homme d'art oratoire, mm -hmm. qui maîtrise l'art de parler, mm -hmm. qui a défendu le président Ablaye Wade aux heures les plus chaudes. Mhm. bi mu koy défendre ñu bëri ñu mënuñ ko défendre. Mhm. dans l'opposition mhm. euh, mu nekk it koo xam ne. Euh, euh, lu mu bëgg a wax la wax. cest à damay bañ nit ñi yaakaar ne. Maître Madické campagne bi ko dalal daf ko dab. c'est-à-dire que dafa am lu mu doon liggéey. donc il avait un programme. mais je pense que li ngay war a jàpp ci campagne bi yëpp yëpp cette campagne on parlera encore de toj na fi raja. en communication ce que qui est le plus important c'est pas le message qu'on donne c'est l'impact de ta communication. tout impact bi lan la mooy tey Madické Niang ku fëgg sa buntu kër nga ubbil ko. Mhm. maître Madické Niang euh, monsieur le ministre pour la pour le respecter. Mhm. tey jii ku taseeg moom. di nga am di nga am fitu nga nuyu ko. Mhm. donc campagne bi humaniser na ko. man bu ma sañoon nag tey euh, ku mel na moom. moom dañ koy. xam nga bàyyi ba le 28. ba xam nga ginaar ginaar boo koy lekk. sekkee <laughs> uh-huh. ni yow ni wax leen lu leen neex. Uh-huh. ginaar boo koy lekk boo xoolee yax bi ci gën a neex toujours da nga koy denc. dëgg la de. waaw gana dof nag yenn saa yi nag gana yenn saa yi nag gana dof ñëw. Mm-hmm. nga bokk ak moom yax bi. Mm-hmm. waaye je pense que maître Madické Niang. Mm-hmm. Euh, euh, man bu ma sañoon daal mooy clôture xam naa dinaa ko ñaan euh, le patron. voilà ma sañoon mooy clôture. d'accord <laughs> waaw mu balaa mu fi tocc rajax voilà parce que xam naa ne am na ñaar benn costume bu moo ko gis mu sol ko. Uh-huh. moog doom ji. Uh-huh. naan doom naan ko noo gisee sama costume bi xam naa ne vidéo boobu <laughs> il faut. il faut mu ñëw waaw <laughs> donc maître Madické plébiscité euh, par euh, les Sénégalais pour mu nekk invité quartier général il en reste encore tonton Mac Pape Samba. ci ginnaaw ci ndimbalu Mamadou Ndiaye mi nga xamante ni sànq ba tey euh, mu ngi àndandoo woon ak euh, internautes yi xeetu sondage euh, la ko def a sa César Yann Thiam moom tamit plébiscité par les internautes ñu ngi koy xaar ci quartier général bi moom tamit elle est très ci li ñu ko dénk depuis très longtemps. waaw xam nga moom léegi dafa jóge cabinet présidentiel pour nekk nekk nekk ministre ci gouvernement bi mais comme je dis moom kombaam dafa xaw a doy waar. parce que mhm. moom dama ko doon i mu yor campagne yu boppam mhm. yor ay di dox mhm. doxu boppam mhm. ensuite est partie d'un mouvement pour rentrer dans un parti politique et je pense que yéen a ngi doon la promotion euh, de la nouvelle génération de femmes politiques vous avez parlé de tout de suite madame le ministre de la jeunesse mais aussi je pense que aujourd'hui war nañ war war na fi ñëw mu comment elle va passer d'une femme partisane bu bokk ci benn parti ah, war a gérer loo xam ne intérêt national la mhm. c'est-à-dire que transition boobu nan lañ koy defee mhm. je pense que modèle féminin yi war nañ ko wax mhm. pour aujourd'hui xale yi xam ne ak waajur yi tey seen doom yi ñu bañ a jàng ñu xam que ne euh, mënul leen yàqal dara et puis bon je pense que Zahra am na fi place voilà parfait euh, beneen euh, personnalité plébiscitée toujours par vous chers téléspectateurs kii mooy ah. Matar Ba ministre des sports Euh, moom bu fu ñëwee miin fu mu fu mu. ñëw fu mu miin waaw. waaw du fi wax du fi wax guléet du fi wax guléet mais comme dañoo jëm kaan. Mhm. am lu ñuy wax. Mhm. ne fédération bi dese na am na deux milliards ci keesam. Mhm. te dañ daan dégg ñu naan dem nañ manqué nañ lii manqué nañ lii. moom tey reconduire nañ ko. tey fan lañ toll. cest à que nan la ñuy def ba Sadio Sadio Mané war a dem final te mu génne suñ formation ci coupe bi gën a rëy. suñu équipe nationale d'après li ñoom Claude Leroy di wax suñu xel war na dal. Mhm. tey jii ministre des sports war na fi toog ci koor gi. Mhm. bu toogee ci koor gi nag mu wax ñu moom. Mhm. voilà arène nationale bi li ñu ciy wax Dakar Arena Tour yooyu yëpp je pense que tey jii war na gindi xelu sénégalais yi mhm. ci ci guddi nag mu toog mhm. wax fi te comme aussi mouvement sportif la jóge mhm. nu mu tudd ministre bi nawetaan la génne waaw war na mën a kii euh, frottente ak nit ñi fi quand même il le faut donc moom tamit ñu koy xaar xaar monsieur le ministre Matar euh, Ba euh, on découvre beneen personnalité très rapidement une heure cinquante-quatre du matin mooy doog a jot président Macky Sall président plébiscite sollicité euh, euh, par internet yi pour bu nekk invité euh, quartier général moom itam bu ñëwee dina neex. moom moom moom day ñëw. Mhm. parce que lu tax mu war a ñëw mooy ku yor lépp ñëpp. Mhm. da ngay dem fépp fu mu la soxla mhm. léegi nag xam nga intérêt mu ñëw mooy lan. mooy Sénégal gépp a ngi wax fast track. te quatre-vingt-dix pour cent xamuñu ban làkk la. sama classe gi. xam nga léegi nee na dafa jublu ci jubal. mbedd mi jub mbedd mi set ñàll yi set. jikko yi ñu liggéey ci. waaw bu ñëwee toog ci penc bi waaw mais nag dana doy waar de première dame ñëw président ñëw. Ah. kon kër gi ko fay des. yéen nag da ngeen xoolaat seen bopp. xanaa xanaa ku ne ñu jox la jour. <laughs> waa mais mais mais mais mais bu ñëwee fii dina dina dina dina rëy de. incha allah dina rëy de bu ñëwee fii incha allah donc président Macky Sall bu ñëwee fii dina rëy de président ñu ngi koy xaar. Eh, xam ne Dieng ba am na lu ko war a laaj <laughs> <laughs> je pense que dossier yaa ngi fi. <laughs> mais pour man c' possible. Mm-hmm. pour man c' est possible c' mm-hmm. non sa interview ak moom. Mm-hmm. campagne bi je pense que joxe ci changer. Euh, image bu rigide bi nit ñi am ci ci ci ci moom. je pense que occasion la. Mhm. bon maintenant cabinet bi mooy décider ak moom. Mhm. Mhm. voilà donc il en reste il en pas euh, jeex na jeexul euh, dites-moi pour euh, internautes yi on m'a parlé de Sadio Mané tonton Mac on m'a parlé de de Kara Mbodj on m'a parlé de Aliou on m'a parlé de on m'a surtout de Sadio Mané. Sadio aussi plébiscité par par internautes yi Mamadou Ndiaye depuis cinq n'est-ce pas. deuxième partie koor gi dina ko fekk. voilà voilà voilà waaw nañ ko <laughs> kon <laughs> pousse ko mais plébiscité par les internautes Sadio Mané sera notre invité ci quartier général. incha allah docteur nee Mohamed Salah <laughs> c'est bon voilà donc c'est ça euh, ñooñu ñëpp ils ont été plébiscités par internautes yi euh, weeru koor nag euh, bu dugg see fii ci Sénégal habitude yëpp dafay soppeeku dañuy gis ni jigéen ñi dañuy dem ci mouvance boo xamante ni oustaz ñoom sellal la ñu ko tuddee et pourtant boroom xam-xam yi yàgg nañu toog ci télé yi naan jigéen day muur ay cëram Mado def na ci ab gëstu tendance bi hijab la abaya muuru def rabu bu am capuche comme bi nga sol loolu mooy euh, sa gëstu tey. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek donc saa su ne gis nañu weeru koor bu jotee rek maanaam doxin yi euh, dañuy dafay changer comportement yi dafay changer macha allah ba ci colin yi colin yi yoonu nag gis nañ ko ci jigéen yi nga xamante ne léegi dañuy sellal maanaam lépp loo xamante ne lu dang la wala tubéy xeet yi nga xamante ne dañ ko doon sël bu njëkk dañ koy pousse fee jël li nga xamante ne moom la ñu tuddee ay hijab wala jàllaba wala bu mu ci munti doon waaye li ñuy def rek dañu demoon taataane sunu ay kàddu ci ñenn ñoo xamante ne dañ ciy yëngu maanaam ci njaayu ijab boobu ñu dem xooli bu ñu ñëwee nag gën ci waxtaan et surtout Pape euh, oustaz Pape Hann moom tamit jox ñu ci ay tegtal incha allah. am waaw njaayum jalaabe yi moom macha allah si biir koor bi ndaxte am na yeneen jalaabe jalaabe yi dañoo bari par xeetum jalaabe la quoi na yoo xamante ne spécialement pour ndogu bi. wàllum ndogu bi daal am na yoo xamante ne spécialement aussi pour wàllum wàllum koor bi. ma commencé si jigéen ñi sax am na xamante ne bu ñëwee dañuy naan ja jaay ma jalaabe bu bu ñu tegee ndogu quoi ñu préparé ndogu daal spécialement dafa am jalaabe ci fàllu kool. amu julli bi cër yëpp dafa war muuru donc euh, avec jàllaaba yi am capuchon. donc c'est si yaram bi dina muuru bopp bi muuru loxo yi muuru. góor yi aussi dañuy ñëw ne jaay ma jalaabe pour bi ma préparé koor gi yooyu. koy sol tout temps si journée bi soit ñu sol ko ci wàllum yi la beeg yooyu. bu dee eerum koor gi moom jalaabe day yéeg ndaxte tout temps ñëpp ay soxla jalaabe prix yi moom kii sans dépend dañuy xiiwale macha allah. voilà donc ñoom ñoo koy jaay ek période bi dafay gën a jaar parce que ku ne da ngay bëgg yére boo xam ni euh, dafay am lu la muur et euh, gis naa ci Fallou Kol euh, càmmiñu Marianne Siba Marianne moo taxoon ñu xam ko et c'est et c'est beau donc coloré boobu macha allah Pape comme ni nga ko waxee xam naa ni dinañ ko sàmm sàmm ko sax tax bi ñuy demee dékku sunu ay micro mu nangu wax ak ñun te xam naa ni itam du ñàkk dinañ jël ci ay kaalaam di ko muuroo fi ci weer bi nga xamante ne moom moo di weeru koor bi di ko delloo njukkal jàppee ko comme ni nga waxee rek Marianne Siva qu'elle repose toujours en paix waaye comme ni doon waxee rek li nga xamante moom moo di jàllaaba wala hijab mu nekk xeetu colin yoo xamante ne la plupart dafay xew bu weeru koor jotee waaye nag nekk na ay tunu yoo xamante ne yàgg na xew mais niñ ko dégloo ci ni mu waxtaanee dafa bare façon am na yenn yoo xamante comme tey yi ma sol muy xeetu sañse yoo xamante ne ñëpp mun nañ ko sol wala comme booy toog ci plateau mais mu amaat yeneen yoo xamante ne aussi dañ ko créer pour dimbali soxna yi nga xamante ne dañuy julli yére yoo xamante ne dafay jot yi egsi bi nga euh, ba ci poignée yi ak yenn yoo xamante ne dafay ànd ak kaala wala yeneen yoo xamante ne kaala bi sax day bokkaale ci li nga xamante ne moom moo di ijaab boobu soxna yi di ko mun di ko utiliser euh, ci li nga xamante ne moom moo di bu ñuy julli donc li ñuy def rek xanaa dañuy jox oustaz Pape Hann <laughs> kàddu bi rekk <laughs> macha allah. di muuru di muuru effectivement Pape Cheikh. <laughs> waaw wala di tàggalu tàggal bu mel ni mbëlee. <laughs> jërëjëf Adja Mado <laughs> euh, xam nga yiw dafa dal xel alaaj mbedd mu la neex jaar tey professeur mi am na ñoo xam ne bu dajee moom dañ koy làqatu parce que lu bon lanu sol bëggu nu mu gis ko wallaay dogguma la léegi lañ koy jëf ah waaw ok d'accord waaw waaw waaw lu mel noonu lañ doon waxtaane fii am na daal luñ doon waxtaane man moom <laughs> ci njabootu docteur ñu naan si ko mën a romb ko ah <laughs> <laughs> yàlla boo ma xamal. c'est pour confirmer li nga li nga wax nii. <laughs> fukki fan ak jéggali lañ nekk pap <laughs> yiw yiw yiw dafa dal xel. waaw nit daal nit daal war nay muur ay cëram bala nu koy muur. waaw nit war nay muur ay cëram bala nu koy muur. waaw xam nga malaayika du gis boppu jigéen bari na jigéen ñoo xam ne dem nañ hôpital def scanner ñu xool leen gisuñu benn feebar. méttitu bopp yoo xam ni. parce que malaayika du gis bopp jigéen mhm. mën ngaa dem ci jotaayu yiw ñu bàkk yàlla malaayika yi bu ñu bàkk yàlla dañuy ñëw malaayikullaahi la ziltu min al kurama xufat bi jamaikum tuuba liman xadaru mhm. ñoom fu nu bàkkee yàlla dañuy ñëw bu nu ñëwee na gis fa koo xam ne muuruwul dañuy wàññeekuwaat mhm. léegi loolu mën na la indil jàngoro mën na la indil feebar parce que malaayika du gis bopp jigéen te yiw dafa dal xel gis nga yiw jigéen bu yiw ak jigéen bu yiwadi du benn yiw nag boo ko defee mbedd mu la neex jaar sa kilifa boo dajeeg moom doo ko làqatu parce que da nga yiw <laughs> te boo dee jullit ne jullit laa dangay wane da ngay wane misaalu ni ko jullit laa gis nga yàlla du sunu maam sunu buur la moom borom bi subhanahu wa taala te yàlla wax na ba noppi adduna bi ba euh, bàyyi saaxu yàlla na yàlla leeram nee na gën a ji Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na nee na Cheikh Abdoul Ahad ne ko waa ji Alaaji Ibu addina yàggul waaye mun nga ko nga dëgg de mun ko waa ji Alaaji Ibu àddina li muy yàgg di yàgg nitu ko gën a yàgg di mun ko wax nga dëgg di Mbàkke mun ko wàjji alaaji ibu euh, nit li muy yàgg di yàgg di mënam moo ko gën a yàgg di mun ko wax nga dëgg di Mbàkke mun ko wàjji alaaji ibu àddina mu yàgg di mii ak nit mu yàgg di mii ak mënam mu yàgg di mii waaye tooñ fi yàlla xaju fi te jigéen ñàkk muur tooñ yàlla la parce que yàlla wax na yonent bi ni ko waxal say soxna ak jigéenu jullit ñi nañuy muur seeni cër muur la nanuy muur nañuy muur seen i cër. waxuma bopp kese. waxuma bopp kese mais say cër am na jigéen am na jigéen ñoo xam ne bu ñu nee maanaam mbedd mi boo génnee moom mën ngaa mën ngaa bañ a xool mais gis moom di ko def. mën ngaa bañ xool mais gis di ko def. xam nga bi gën a garaaw mën ngaa bañ a xool mais gis di nga ko def di nga gis alaaj Pape donc dañuy boole ñaari bàkkaar. waaw bàkkaaru bañ a muuru. waaw teg ci itam nit ki nga xamante ni xool na leen te tayu ko. génn bët amul kubéer daal. génn seeni ween ci biti. ween. <laughs> wallaahi ak ni ak ni ween amee woon valeur. léegi jigéen ñëpp ci mbedd mi bu saa yoo génnee ween yaa ngi ci biti alaaj pap dafa leen di so choqué sax ñoom jigéen ñi ñu dafa dem defi reportage ba pare ñoo ma man daal damaa gis koo xam ne jumbax out la sol cest à moom jigéen sax loolu choqué na elle est choquée mi ngi noonu alaaj pap moo tax yiw dafa dal xel alaaj pap te yiw dafa baax <laughs> te boo dee doomu julit ne julit laa eh. da ngay wane ni julit laa eh. sol lu yiw nit ñi respecté la mm-hmm. doomu aadama yi jox la cër mm-hmm. gis nga góor ñi am jigéen ñi amagul borom kër maa ngi leen diggal dee leen yiwal dee leen sol lu yiw ci mbedd mi gis nga góor ñi mën nañoo ànd ak yow taxawaalook ak yow mais bis bu takk jotee mm-hmm. ku yiw la nu takk yóbbu la séba dëgg la parce que góor bu nekk bëgg na njabootam baax góor bu nekk bëgg na ay doomam baax góor bu nekk bëgg na ay doom yu tekki jigéen ñi bari lu ñuy génn sol lu bon bàyyi leen xel ëllëg mag ñay wax ni ëllëg du añ du reer mais lu mat sédd la ndax it nag nga dem ba garage fekk fa oto ba paan ngay jël say bagage ak doo dem am na ci ñoo xam ne boo kalaambiitoo ci ñoom doo dem tey te doo dem ëllëg loolu nag yàlla na ci yàlla musal jigéen ñi yiw leen jigéen ñi muur leen jigéen ñi bàyyi leen xel li leen yàlla defal teraanga bi leen yàlla defal yéen a jur yërëntu yi yéen a jur saxaaba yi yéen a jur axtaabeek axwaaseek afraadeek awtaadeek abdaal yi yéen a jur yi yiwal leen te yiw te xalaat mi ëllëg mën ngeen am doom joo xam ni doom ju yiw la alaaj Pape fa laay daanelee mm-hmm. benn góor ca Saalum benn góor ca Saalum mm-hmm. daa xëy woo jigéenu dëkk bi ne gàcceel ngeen ma gàcceel ngeen ma jigéen ñi ne ko lu ñu la gàcceelee mu ni leen am na wëllu yu bu doon wër dëkk bi di xool ban jigéen moo ko fi war a jur mais gisul jigéen ju ko day dellu na xam nga wëllu yu mooy tànnal boppam day ji ko war a jur dëkk la de wëllu yu jigéen jigéen du dul muuru doo jigéen ju yiwa di doo jur wëlliyu alaaj pap wëlliyu mooy tànnar boppam jigéen ji ko war a jur jigéen ji ko war a jur moo koy tànnal boppam jigéen mën naa bañ a muur mën naa bañ a muur kanam boppam te yiw waaye ci biir kër gi nag ci biir mais booy génn sedd yàlla bu sa bopp génn muural say cër bu say ween génn yiwal waaw nga sol lu baax. ah léegin si léegin si mooy lan. mooy tubéy bu dañ bi rek. waaw doo doo ko xam. yàlla mi ñu ci xam ne xaw ma léegin si. léegin nga ni. xam nga léegin si waaw. rek bu dañ xam nga islam bi mu ñëwee. dafa ni muuru leen. waaye bi mu ñëwee comme d'habitude loolu dañ koy waxtaane fu ñu mm. toll ci émission yi. Mm. dafay fekk mag ñi. Mm. fekk fi seeni jikko. fekk fi ngor. te ngor. ak mat ñi dañoo musoon a yiiw waaw dañoo dañoo dañoo yiwoon xam nga dangay ngay dëpp sax laaj bi mhm. xam nga oustaz dafa baax man toujours damay dëpp laaj bi mhm. euh, jigéen ñi laay laaj góor gu ñëw di la takk si daf yaramu neen waaw góor dafa am awraam fu mu yem dëgg la dañu jumbax bi bu mu feeñ ba mu si ci oom yi waaw léegi góor bu sol kilot jumba xam di feeñ ay onomi feeñ mu ñëw di la si ndax da ko jël daa di pandang laaj la ak tontu waaw léegi dama ko dëpp koo dëpp kon yéen bugg leen kon yéen kon yéen yéen bugg leen góor boo xam ne na but awraam yéen bugg leen ko ok kon bugg leen am jëkkër joo xam ne fu mu toll awraam day feeñ question ma laaj beneen question léegi jigéen ñi nàmpalee seen doom biberon lu tax ngeen di tëj tétine bi lu tax fu ngeen raxasee biberon bi tëj ko fi doo gone gi nàmpe pour micro bañ a dugg waaw ween wi nekk ween mooy biberon bu officiel bi allahu akbar docteur yi docteur nag jàngalekat dëgg. c'est numéro bu officiel bi c'est vrai mm-hmm. ah. waaw dañ ko war a tëj. man suur dañ ko war a tëj tëj pour protéger ñëpp. moo tax ñëpp feebar. pour ñëpp am protection rek. parce que microbe bokk mu ne biberon bu ma ne ko te parce que ferñeent yëpp a ñu ci. OMS sax da koo digle pour ñuy nàmpale suñu doom yi ci weer. waaw parce que ferñeent xam nga xam nga bët dafa xam nga bët bët dafa doy waar. nga bët dafa doy waar. maanaam yow lii nga war a dundale sa doom ëllëg. Ah, ah. waaw léegi man man question mooy posé mooy jigéen supposons moom moom yaramam lu ko neex mu def. yow sa doom yi war a judd ci kàttanu yàlla. yow loolu nga leen war a dundale ah. léegi ñoom ñoo ko moom ak yow ak sa borom kër ah. bu la lewee hmm. parce que sa borom kër yaa ko moom moo la moom ci ci waxin Pape léegi li ma bëgg a poser question mooy léegi man mi la takkut bokk maa ngi yow ndey baay hmm. du ma sa doom waroo maa nampal waaw loolu lu tax sama yoon néew ci te ma koy gis oui non xam nga problème bi. c'est vrai mënuloo defar omelette te doo tooj nen. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga nag xam nga bu ngeen bëggee bu bëggee émission bu neex. bu ngeen mhm. bëggee émission bi neex. bu ngeen bëggee émission bi neex. da ngeen di da ngeen di xool liñ leen di joxoñ te bañ a xool baaraam bi leen di joxoñ mhm. ndax sànq ba léegi bu ne jigéen rek ngeen gis seen bopp. Mhm. Euh, jàpp leen ne dañuy wax dañuy waxtaan ak yéen. waaye du yéen la ñuy waxal rek. xam nga lu tax ngeen war a jàpp wax ji dafa dama posé ñaari question sama bopp damay observé jigéen ñi bu ñuy dem marché li jigéen gën a bañ mooy marchandise mu kenn dencu lu ne yàmbalan noonu. jën jën yi jën yi loo xam ne kenn protégé wu dama seetlu jigéen ñi ci marché bi dañ koy dañ koy sax kaas. Mm. léegi yàlla yàlla daf ne lim sàkk yëpp nit la ci fal teg ko ci ah, kaw muy tànnee fam mm-hmm. mais yàlla lan la sàkk ba loolu mu gën a bëgg bu jógee ci moom moo fa la koy denc ci jigéen mooy jigéen mm-hmm. kon enveloppe lu jigéen mm-hmm. maanaam mangasinu yàlla la bu nit di defee stage pour mën a ñëw waa léegi barab booba ndax duñ ko duñ ko rusee yàlla xam nga jigéen ñi il faut que jigéen ñi comprendre que chance bi ñu am mooy que ñoom li nu àttan góor àttanul genn wàll gu neexut a wax nag Sénégal parce que Sénégal dañ naan góor ñi nii góor ñi nii mais li jigéen àttan góor àttanu ko léegi euh, jigéen se boobu mu am dañ ne ko léegi loolu amul solo xam nga lu neex mun a ah, mun a waneel sa yaram solo lu dang kum neex mu gis kum neex mu gis kum neex mu wax ndax danaa ko def te kenn du ko wax ak bu fa. dëgg la kon question bi mooy lan mooy nit ku ne mën ngaa solo du ànd ak sa jamono mais ku la gis jox la cër. question bi foofu la nekk. man yenn saa yi et puis <laughs> Pape bu seere euh, fuseau bu seere waaye sol ko ngir yàlla na say tànk jub ba neex a xool. ak ak taux yi xotti nag. ji ñoom xotti. waaw xam nga xam nga xam nga li may wax rek. li may wax rek li may wax loolu lañuy tuddee déchiré man pour man modd modd am na. modd am na ah. lu ne mën na am. mais su amee su amee euh, na na na na man dignité jigéen laa bañ muy wàcc. cest à question bi foofu laay waxee. ñun suñu waajur jigéen mosuñoo gis seen yeel. déedéet. mosuñoo gis seen i yel parce que dama yaakaar ne góor ak jigéen euh, yaay ak doomam papa ak doomam dañ kersa dafa war a dox seen diggante. te xam ngeen nag Sénégal est-ce que xam ngeen ne robe day retraité Sénégal. jigéen ji fi am 45 ans sa robe retraité sa mini retraité seetlu leen ko ci mbedd bi. yéen yéen a ngi yéen a ngi retraité te yëgu leen ko di waaye léegi fexe leen ba loola fexe leen ba loolu bu mu leen forcé boppam ngeen forcé ko seen bopp lu may waxee mooy kenn ku ne solal yére bi nga xam ne moo ci ngay gën a nekkee à mais fais-toi respecter. Mm-hmm. c'est très important fais-toi mooy que solool lu la neex. Mm-hmm. mais wax dëgg neex yàlla solool nu ànd ak sa aada tubaab bi dafa am lu ànd ak aadaam. Mm-hmm. ñun mu am lu ànd suñu aada. la tubaab bi soxla nag la tubaab bi sol lu ci ne man nañ koo sol. mais mu ànd ak mu ànd ak suñu aada. ba pare adapté woog seen aada ak seen seen seen lépp man je n'emprisonne personne man emprisonné wu ma kenn tëju kenn ci kaso. Mm. mais je pense que ne aujourd'hui la mm. question qu'on doit poser. Mhm. mooy lan la ñu bëgg wax suñuy doom mhm. parce que parce que ñun góor ñi mënuñu yar mhm. loolu moo tax yàlla bàyyi leen gone yi ba am juróom-ñaari at jusqu'à sept ans gone yi yéen nañ nekkal donc lu ngeen ci deful du ci nekk moom la Seydina Mohamed wax madrasa nee na nee na nday jigéen mooy école la léegi nag góor bi nga xam ni mooy mooy yar mooy defar moom jigéen góor ñi tamit góor ñi tamit seen responsabilité góor ñi seen responsabilité mooy ñoom ñoo dul wax dëgg dëgg la ji góor ñi ñoom ñooy dem ci jigéen gis ko mu sol loo xam ne dafa wow koŋ ñu foto ko ne ko kaa ñu foto da nga maa neex lii nga sol laa bëgg. parce que góor ñi suñu bëggee suñu bëggee euh, wax ak jigéen wala ñu ñu ñu ñu am moom lu ñu seq moom. dañ koy jay. kon góor ñi 90 pour cent responsabilité aussi góor ñi. ci kon jot na. dama ne ñoom jot na dafa am responsabilité. loolu jigéen ñaa ngi nii xoola. Euh, oustaz day neex. parce que dañuy mais góor ñooñu il faut que ñu wax ñoom. waaw waaw parce que bari ci ñoo xam ne ñoom it ñoo yàq société bi. parce que ñii yàlla dafa ni ñun ñoo leen war a mottali. waaw comme que góor a leen war a mottali. bàyyi leen ci mbon gi ñoo nekkee di ànd ak ñoom yàlla buy lakk góor ñi lay njëkk a lakk. dama ne ñaar ah, mais guu bi la ah. seen guu moom bi la rek. xam mais mais mais docteur góor ñooñu it war nga wax ak ñoom. <laughs> waaw nga may wax ak ñoom war nga wax ak ñoom. war nga wax ak ñoom xam xam nga fu may wax ak ñoom oustaz maa ngi waxee ak ñoom ci fajar bi man du ma la yedd timis xam nga luy fajar mooy diggante bi sa doom juddoo ba bi muy am juróomi at booba gone ko du dem marché jëndi walis du jënd mbub mum sol koo koy jëndi mbaay nday mhm. kon na nga bëgg sa doom mel bu màggee yaa ngi koy ña ngi koy xamee ci wëli si juddoom mhm. gis nga gone boo ko tàmbalee boo koy raxas ak di ko defar boo ko defaree ca ca ca fan ca wanag woon ba noppi ba ko mu def yaram mu neen di dox ci digg kër gi yaa ngi koy jàngal ñàkk jom yenn saa yi nag góor ñi góor gu xëy suba sa doom war a génn muy góor muy jigéen war nga xool na ma solo war a koy koy tuddee sa doom xool ko yenn saa turandoo yi indi valise bi léegi nag responsabilité yooyu tamit xam nga responsabilité bi dañ ko partagé dañ ko partagé parce que jigéen joo fa gis mu lonk sipp góor la lonkool jigéen joo fi gis mu lonk sipp di dem góor la lonkool ñuy dem te góor gaa nga gis sipp ba waaye fi ak ma nga ma nga soxlaa nax ndaw sa du ko wax dëgg. góor ba tamit tànnul ki sol bi moom daa gis ki sol bi mu tànn ko. waaw ndax dafa am mandarga mu mu koy jox. gis nga yenn saa yi boo fekkee jigéen ju muuru ba toog. Mm-hmm. nga fekk jeneen jigéen ju muuruwul ba toog. dafa am koy ñemee waxal ak ko du ñemee dëgg la góor ñi it boo fekkee góor gu yiw góor gu yiw sol yére yu yiw toog mm-hmm. ak geneen góor goo xam ne ma ngay wax di utiliser yenn termes yi mm-hmm. yow boo amee fulla booy laaj doo laaj kooka dëgg ndax dafa am lu mu lay jox mm-hmm. kon la question mooy aujourd'hui ni ñu bëgg mag ñi mel dañ koy commencer ci gone yi ndax nag ndox bu foroxee dañ koo rax. dëgg la ndoxum kese ci biteelu kese lu mu yàgg yàgg du forox. kon gone yi nii nu mel. Mhm. man ak yow boroom kër yi ñooy première responsable. deuxième responsable bi mooy euh, boo amee doom te xamoo lu mu taf ci néegam bul xam nu muy solo. Mhm. sa doom boo xamul ban photo la def ci néegam. xamoo xamoo ko muy waxtaanal. Mm-hmm. boo xamul ban poster lay waxtaanal. Mm-hmm. nga naan ko El Hadj Malick nee na radiyallahu taala anhu Serigne Bamba nee na yàlla na yàlla yokk wax wax wax wax ba sonn moom bu tëjoo bu ubbee page Facebook moom romb na fii bu yàgg ma nga Toronto. Mm-hmm. <laughs> gis nga problème mooy mën ngaa tëj say kër ba pare say doom tukki <laughs> responsabilité bi mi ngi ah. àgg ci ah. ci ci choix yi ñuy def gis nga gis la question elle profonde question bi dafa profonde te yaakaar naa ne sénégalais yi kenn bonu fi mais am na ñu bëgg bon ñi bëgg a bon nag dañoo am fulla am fayda dañu def na ne weng ba pare def ko Facebook ba pare di la ko jaay ngay clic clic boo cliqué nag am nañ un franc léegi nag yow mi nga xam ne bëgg ngaa baax te bëgg ngaa jël yoonu baax dama lay delloo ci li bàyyi laat waxoon. Mm-hmm. yàlla nañu yàlla taas ci barkeem. bàyyi bàyyi laat waxoon naa leen ko bërki démb. nee na baax yàlla da koy jaay ñu ne ko luy njëgam mu ne bëgg baax. bëgg baax kon fan lañ toll aujourd'hui jay na ba. fan lañ toll. Mm-hmm. nañ waxante dëgg. Mm-hmm. man bu ma rombee mbedd bu ma gisee xew damay xam ba xam dëj la wala ngénte. bu jigéen ñëpp muuroo rek damay xam ne dëj la. dëj la waaw. dama koy xam. léegi lan moo tax booy dem dëgg nga muuru. lan moo tax booy question yooyu daal nañ ci waxtaan. Mm-hmm. te ñu bañ a accuser kenn bañ a joxoñ kenn. Mm-hmm. ndax kiy dox di ñëw mi ngi ci yoon wi. Mm-hmm. li may bañ nag mooy ku fekk nit ne ko da ngaa bon ku deewoo du dem safara. nit ki tànk mi ngi dund. kenn dañuy waxtaan ak moom mais kenn du ko joxoñ. yàlla yàlla rek a xam mën yàlla yàlla wax si dina Muhammad ne. ne ko deel xuppe mais deel bégle. deel dee leen bégal. sama aljanna bi. dee leen bégal ci sama mbaax. dee leen ci sama yërmande mhm. waaye na yenn saay nag nga xëpp leen yaayul yaay shahidan wa mubashiran yaay wa nabiyu inar salnaaka shahidan waaye wan nazira macha allah macha allah dee leen Muhammad yàlla mhm. wax ak moom mhm. ne ko gaa yi dee leen bégal nag aljana la fa ne sama mbaax dee leen bégal samay teraanga man borom bi subhanahu wa taala bégal leen sama yërmande ju lamb waaye yenn saa yi nga xupp leen kupp gi mooy nañu xam ni mbon baaxul kupp gi mooy nañu xam ne yow loo wax maa ko wax loo wax waxuma ko kupp gi mooy nañu xam ne alquran dëgg la kupp gi mooy nañu xam ne bind naa safara te safara dana fees de kupp gi mooy bind naa aljanna ñaar ñaaray am nag yow yi nit la si naaw sumaan waxoon huma mahallaani ñaari wàcc waaye la ñu maalil mar i xayruhuma ñeelul nit bu mu ci aljanna mbaa safara kon faxtar li nafsika tànnalal sa bopp ay daari taxtaaru ban kër nga war a dugg bàyyi bu saaxo daan wax ni daa am kër gu bona bona bona bon lu bon a fa ne yu bon a ñu bon a fay dem. kër ga bon ko dégg nga maam dégg ma. am kër gu bon a bon a lu bon a yu bon a fa ne ñu fay dem mooy am kër gu baax a baax a baax. lu baax a fa ne yu baax fa ne ñu baax a fay dem. mooy aljana yàlla ci yàlla yu bale. amiin amiin amiin amiin uh-huh. dama am lu ma dégg tey kilifa wax ko ma bëggoon koo baaxee ak ma bëggoon koo séddoo ak yéen. Mm-hmm. daf ne ma àllaaxira daf ne àllaaxira toq uh, toq sonalul nit ñi xam nga toq mooy pélican bu weex boobu mun a toq sonalu nit ñi ndax xam nañ fu mu jëm mu ne ndobin mu ñuul mu a ndobin sonalul sonalul nit ñi ndax xam nañ fu mu jëm mm-hmm. mooy kër gu bona bona ga mm-hmm. toq mooy jëm kër mu ne mm-hmm. naata nara a sonal nit ñi naat moo nar a sonal nit ñi buntu àjjana moom la ñuy lijjanti ay mbiram xam nga naat mooy weexoo ñuuloo dëgg la de da ngaa déclaré jullit te doo jullit nga déclaré catholique doo catholique mm, kooku mooy naat cest que nit da ngay def choix boo déclaré ne jullit nga dangay ngay responsabilité boobu responsabilité la kenn du judd doon jullit da ngay judd ñu jox la turu jullit nga màgg xàmmee jël décision toog ci nga juddu nekk catholique ñu ñu baptisé la nga màgg bu la neexee nga génn bu la neexee nga toog mais boo xasee ba toog nag da ngay jël responsabilité responsabilité boobu jeey na boo ko jëlut naat ngay doon ñuul ñuuloo weexoo kenn du xam fu lay dugg léegi nag buñ lay càmbar day yàgg. problème bi nag mooy on est des sénégalais. Mm-hmm. qui vivre à l'occidental. Mm-hmm. mais ki voulons vivre notre religion. Mm-hmm. donc bu dee ab jullit nga bu nekkee ci jumaa ji day arab arab lu buy tari arab arab lu bu génnee di takk jabar wala muy ngénte bu fekkee jàng na ba àgg CM2 comme man muy tubaab lu buy tukki tubaab lu bu demee kokki bëgg a wax ak waa kokki di kow kow kon kooku dafa am ñetti identité. l'identité culturel de son substrat am deuxième identité mooy identité bi ñu def ci moom école bi mu jàngee am troisième identité mooy identité religieuse am ñett yooyu bu ñu passé ci bopp nit ki day katakay ni c'est pourquoi on est des moo tax on est des névrosés culturels on est équilibre mën na ne équilibre bi nag xam nga lu koy indi équilibre bi lu koy indi mooy di naan ndox xaaju guddi di yeewu xaaju guddi jaakaarloog sa seetu ne ko maay kan mm. mu ne la yow yaay Dieynaba Seydou Ba nga ne ko déedéet ba Seydou Ba ba muy judd dafa ñuuloon waaye kii ma jaakaar loolu dañ koo diw xeesal ba mu xees pecc kon du man man maay kan mu ne la yaay Dieynaba Seydou Ba nga ne kon bu ma bëggee doonaat ba damay bàyyi xeesal gis nga conférence boobu nit di def ak boppam moom laa la fi waxoon ne la nit ku ne day dafa conseil de ministres ak boppam conseil de ministres bi mooy man Massamba Gueye loxo fooy dem loxo fooy dem bët looy xool mhm. làmmiñ looy xool loola lu ma ci jàpp ak lu ñuy nettali nit bu dul def boppam conseil des ministres tous les jours na ko leer ne dañ koy jëlal décret waaye moom du jëlal boppam décret. macha allah macha allah macha allah loolu duñ ci teg dara professeur euh, dañuy euh, àndaat ak euh, Sadbou bëri na ay sujets yoo xamante ni préparé nañ ko xam naa dinañ ci ñëwaat au fur et à mesure ñu dem ak yéen ci quartier général bi tey dañuy teel a lalli bu ko defee ñu mën a dellu si waat <laughs> <laughs> bugoon dem ba 4 heures du matin rek heure xëdd dama bëggoon bu ñu salaatoo rek ma doog a tàggoo <laughs> loolu laa bëggoon ne tey exceptionnellement dañuy teel a suba nag bu ñu euh, ñëwaatee incha allah dañuy dem ak yéen ba euh, salaatu bàyyiwaat leen nag euh, sat bu sàmb laataa tàggatoo bi tey ci guddi gi ci télévision Futur Média QG 2019. ne ma ngoone maane ma ngoone coro may sa awa seer may sëga biri ma jigéen ma jooja anta kumba mooy sa maame lébi ko fi gënul gënula alweli maame njaay sëriñ ci bi boor waaye buur nga bye juddu naa ci weeru yaatoo ci lanu bàyyi ñun ñu yaatoo Nico Darafor, ma fu di sëriñ ba rangal ay garaat ni ko jàngal. muy xambal taal bi ay matt muy tàkkal te bëggul la yëngal ngir rakam ja alweli maane lay woowe usmaan kersaata mu ne sëmm أحسن الخالقين man saat bu sàmb duma fàtte soxna miina duma fàtte soxna mama duma fàtte dey de mini jooy sëy yaa ma tawee sëy së ñi ñooy doomi maanen njaay fa tabarakallah ahsanal xaaliqiin sarafa gën ñi gën ñëw gën ñi ba gën ñëw la sarafa rasulillah way nañu ya rasulillah sallallahu ka mbe solarin kena jama solarin duwala mbe kena jama solarin duwala duwala ka solanya sallallahu ilaha illallah sallallahu taala la ilallah la ilaha illallah sallallahu taala iman kurya iman jawiya yalla kenn nga la ilaha illallah sallallahu taala cheikh bu nan na waliyuna lawna la ilaha illallah sallallahu taala la ilallah la ilallah la ilaha illallah sallallahu taala jooy na maam Abdul Aziz Dabakh way na lawna la ilaha illallah sallallahu taala la ilallah la ilallah eh la ilallah sallallahu taala jona Serigne Saliou sangum Cheikh Béthio na lawna waliyo na lawna sallallahu taala أنسمت ولينا لونا لا إله إلا الله الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله تعالى بسولرين دوالا مو كنا جما سولرين دوالا بسولرين دوالا سريفو بسولرين دوالا sallallahu taala macha allah macha allah euh, sat bu air boobu euh, euh, air bu air bu doy waar la kontaan nañu fàttaliwaat mbokk yi ni yaa ngi jëm Grand Théâtre le 14 juin. ci guddi goo xamante ni da ci nar a sargal Chérif Alwali Mané Ndiaye ñu ñaan mu yàgg fi te wér lool lool lool sa dem Grand Théâtre nag dugguleet mm-hmm. waaw Pape def nañu ko fa tabaarakallaahu daaw. Mhm. ndax at yéele passé yëpp. Mhm. dañ ko daan def Sorano. Mhm. waaye bu ñu mësaan wax demal Grand Théâtre rek ma ne nañu xaar. waaye fa tabaarakallaahu daaw biñ ko defee daaw jéeg biñ ko defee Sorano. ñi nga xam ne ñooy ay soppee ñoo taxaw ne ma boo ko defaatee fii. dootuñu ñëw. Ah, ndax mënuñu ñëw ba ba yegg si. Ah, te du ñu am fu ñu. fu ñu wax nañ dëgg de wax nañ dëgg de man leen nag borom guddi gi muy Chérif Alwely Maana Ndiaye. Uh-huh. moo toll noonu te mu gore mm-hmm. ah, ah, mm, la ko sama baay la ma sama baay yëkkati. Mm-hmm. teg ma ci loxoom. Mm-hmm. mu ne ko dinaa jëf ci saat bu loo xam ni dina xam ni jëflante naag surtout yonent bi. waaye li lay wan ni ku gore la bi ma defee daaw sargal bi grand théâtre bi mu jeexee. dafa taal otoom def délégation bu rëy ñëw mbuur ba sama kër toog ne ma dama bëgg déwén nga dëpp mbir mi sargal def ko sargal Cheikh Mbaye Ndiaye Samb sa wéyjur mhm. ma ne ko nag yéen ñaar yéen a ngi jël ndabu teraanga di ko bu ba mu nar a toj léegi nag yow comme yaa taxawoon ne da ngay dangaa sa bopp Cheikh Mbaye Ndiaye euh, yaay seet noo koy sargale mhm. waaye man yow laay sargal ah fa tabaarakallaahu euh, muy nit ku gore ku xool saat bu yàgg koo xam di nga xam ni kii wéeru na ci ku mat wéeru mhm. kon Chérif dañ koy ñaanal yàlla di woo Sénégal yëpp di leen wax ni 14 juin daaw am na ñoo xamante ni euh, dañoo ñëw ba ci bunt bi taxaw te ay kilifa yu dëkk ak man mbuur suñu honorable député bu baax boobu Sira Ndiaye tabaarakallaahu mobilisation bu mag la def waaye ñëw na taxaw 15 minutes ne du ma toog te ñi ma àndal tooguñu mm. suñu mag Cheikh Issa def délégation bu mag jóge Mbour tabaarakallaahu ministre Omar Youm yebal fa délégation bu mag loolu nag li koy waral mooy eh, nga bëgganteeg sénégalais yi rawatina métier mi nu nekk ñëpp a sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi ku xool oustaz Pape Hann ni mu mel hmm. nga xam ni bëgg yonent bi rek moo am solo moo wóor sax ah fa tabaarakallaahu Chérif def na li mu war a def yëpp macha allah daaw dafa jël billet yi taxaw ci bunt bi sol grand bu naar bu oyof taxaw ci bunt bi ku mu ñëw fekk la nga taxaw mun la loo bëgg nga ne ko billet mu yëkkati billet jox la mhm. di dugal nit ñi ba moom amul siège bu mu toog ca ginnaaw la mujj dem toog mhm. finalement ñu ñu wutal ko siège ci kaw chaîne bi fi may waye mu ñëw yéeg toog macha allah euh, mbaax foofu la mën a yem. rendez-vous le juin. Mm. Euh, ca euh, Grand Théâtre mm. koor gi it xam naa ni programme yi bëri na. waaw programme yi bëri na ñu ngi dëgmal festival. salaam salaam. Mhm. kenn ku ne xam na dina démarrer foog naan le 10. incha allah rabbi ñu ngi jox ñëpp itam rendez-vous le le le Grand mhm. Théâtre incha allah. Mhm. ak yeneen yoo xam ne war nañ ci participer incha allah. macha allah macha allah kontaan nañu en tout cas te di dellu si waat sax laata laata boobu ndax ñu ngi jëm ci ci festival salaam bëggoon nañoo euh, àggaleek yéen euh, waaye comme euh, naka lañ koy waxee lu juba jeexul jugu fa waaw dañuy tàggatoo rek dik leen daje incha allah ci kanam wala suba Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax yow moom rendez-vous ci fajar gi ci RFM ak xalaas incha allah waaw soobee yàlla kontaan nañu suba incha allah ñoo ngi fi. incha allah voilà ñu dellu si waat ak yéen kaay yeeg euh, actualité bi euh, seen i xët euh, yi attiré sa attention ci ëllëg incha allah. merci Maodo Mohamed Ndiaye professeur yi itam ñu ngi lay gërëm bu baax di xaaraat dellu si ci quartier général bi incha allah. waaw incha allah di baalu àq ñi doon déglu ñëpp. ak ñi doon seetaan. Mm-hmm. ndax. sama maam nee na wax du neex déggee neex mhm. baalu àq ñi ñu toogaloon ci plateau bi ñëpp ndax jataay moom boo fa nekkee rek amel ngi nit ñi àq mhm. euh, di ñaan yàlla émission bi ni mu dooree nii mhm. yàlla may leen ñi ngeen di séntu ñëpp ñëw ndam li ngeen ci bëgg it ngeen am ko ndax émission bu juree ay émission rek dama ko daan wax ci ba ban ko commencé ba yeneen matinal yi commencé man leen ndam la émission bu juree émission rek ndam la bii jur na ay guddi kenn tëddutul guddi ñëpp ngi tëgg waaye nag xam nga moom lëg moom ay lëg buñ jógee lëg gi njëkk jóg rek dañ naan lëg gaa ngi nii beneen mhm. bu jóg dañ naan geneen a nga neer mhm. dañ naan geneen lëg geneen a nga neer rek waaye mhm. lëg gu njëkk rek moo tudd lëg kon yàlla na yàlla defal ndam amiin maa ngi nuyu waa kokki ñëpp di leen baalu àq ndax dama fa daan umee tey munuma ko ndax danga maa njatt ndax da fukki fan avant lii yëpp jiitu <laughs> la ñu wax waxtaan man te wala <laughs> xam yow yow yow moom doom doom nga joo xam ne loo ñaan rek ndigal lay doon léegi waaw ndax loolu nga nu may loolu la leen may di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi di wax nit ñi nañ ñi saagante bi ci koor gi kenn du woor di saaga bëccëg nañ bàyyi xuloo bi ci tali bi kenn ku woor da war a dal nan kenn du woor ba ngoon ngay xuloo di poñente man mii dama koy def te baaxut nañ ko bàyyi ñun ñëpp dama bopp laay njëkkee euh, nanu bàyyi it di woor ba pare di leb ndogu ndogu kenn du ko leb dëgg la de waaw ndogu kenn du ko leb Sénégal foo dem jox la ndogu nanu bàyyi it di di di di mbubboo damay wut ko ndogu di di di dem di ko laaj li ngay laaj jëmul ci ndogu booy laaj rek laajal ku la bëgg jox jox la leen war jox dana la ko jox Euh, nañu wax it xale yi nañ leen yee ñuy xëdd mm. nañ bàyyi branle bi te ñi nañu yeewu di xëdd mm-hmm. ndax day tax xale bi teel a yeewu fajar day tax mu man di jàng fajar nañu yee xale yi ñuy xëdd mm. euh, allahumma salli ala muhammadin wa salim di jaalewaat Cheikh Béthio Thioune di jaalewaat euh, garmi cantakon yi ak garmi di ko jaalewaat le mm-hmm. temps ñu fay dem mm-hmm. di wax nit ñi ne cantakon yi la ñuy wax du ay cantakun waaw ndax cantakon mooy ki nga xam ne day sant aji sant gi ci wolof dañ naan cantakon bi waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaale bu baax a baax. voilà cantakoon la. voilà mu ngoog merci euh, jërëjëf ma docteur Massamba Gueye oustaz Pape Hann yooyu tam ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf alaaj Pape am nañu mbégte euh, ñaan yàlla may nu euh, fekk ay at yu bare bare amiin amiin xam naa jàmm rek. incha allah incha allah commencé léegi. très tôt waaw 9h Sira. Sira waaw Sira Ramadan. incha allah jërëjëf yaa oustaz kontaan nañu. Magène merci voilà. merci kontaan euh, comme ni ma koy defee chaque année damay aussi nuyu sama papa. Mm. Euh, Seydou Ba à mm. Denver sama yaay mi ci wet wi waaye bul mer. Mm. donc sama papa lay bisou. Seydou ko yor Seydou ko yor. <laughs> donc euh, voilà di remercier aussi. nee na euh, dafay mer de. kan si baaba baaba bay nee na mooy sama xarit ñëpp nee dafay mer de. garaawul <laughs> euh, di remercier aussi Kangi Dioum. Mm. ci voilà ci perruque bi. voilà Kangi elle est à New York. mais aussi maman Thiam Diva Couture. Mm. pour la robe merci beaucoup seen yéene yegg na. voilà merci yow Sass. gërëm bu baax. Amérique Amérique ga ma demoon. Euh, nga xam ni euh, euh, teraanga yu bari defal nañu ko fa. Mm-hmm. àndoon ak Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. Mm-hmm. demoon Seattle. Sidi Ahmed sunu sang. dem dem dem Cincinnati. Mm. dem Washington seen mm. gàmm gu mag mm. ak Raleigh. North Carolina. gërëm leen bu baax a baax. fa la fekk képp sax waaye jotul ñëw. ak ak ak euh, ba ma fa jógee ci laa dellu Italie mm. euh, waa waa Verona mm. sunu jigéen yooyu tamit euh, waa soppe nabi yi mm. ñoom ñëpp ñu leen di gërëm ci cofeel gi ñu am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni foo ci nekk rek nit ku ne dinañ jóge état yu ne ñëw ñëw seetaan si tagg yonent bi ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñi nga xam ne ñoo dëkk biir réew mi nekk bitim réew Euh, ñoom itam ña ngay bëgg seen diine fàttewuñu seen diine fàttewuñu seen diine ñu ngi leen di ñaanal yan yàlla barke macha allah macha allah macha allah Madeleine yow it ñu ngi lay gërëm bu baax waaw maa ngi lay remercier Pape Cheikh donc di baaluwaat àq ñëpp comme ca mm. ndorteel ba dama ko fàtte rek te di baal ñëpp mm. àq man itam et puis nag di ñaanalaat bu baax sama yaay jigéen njooro ba si bàcc tegg bàll ak maram bàlla moom itam mu yàgg fi loolu ndax cofeel tax na day toog du ñu seetaan ba waxtu bi te amaana mag na kon nag yaay yàgg fi lool di ñu ñaanal et puis nag di remercier toujours euh, équipe Glam Style by donc ñu ni ñi ngi ci njaayum li nga xamante ne moom moo di IGA bi donc képp koo xamante ne da nga ci bëgg mën nga woote ci 77 552 39 comme ni ñu koy waxee rek Ramadan Moubarak Baye Cheikh. merci Madeleine kontaan nañu képp si yow ñu ngi lay gërëm bu baax. gërëm la bu baax Baye euh, nuyu ñu ñu àndaloon ñëpp di remercier bu baax euh, madame Cissé. bi nga xam ne moo ma habillé tey Seynabou borom euh, Sirabi shop ak Langsar couture ma numéro téléphone am euh, nekk As Ngom ndeysaan numéro téléphone am nekk 78 550 57 83 mu ngi nekk Wakaam en face Assemblée Euh, muy ndey may maa ngi koy remercier bu baax euh, di gërëm itam sama yaay man ak sama papa bi nga xam ne ma nga ca France ak tata di euh, soxnaam maa ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp di gërëm itam Amérique xam ne falaa jóge ñu teral maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp. macha allah merci en tout cas kontaan nañu son excellence waaw. <laughs> ambassadrice Mamadou itam ñu ngi lay gërëm bu baax adjoint DG. <laughs> merci beaucoup maa ngi lay gërëm. nekk adjoint DG ren chef <laughs> ana Coro Mbar Ndiaye itam. ñu ngi lay gërëm Pape bi gërëm téléspectateur di gërëm bu baax. Euh, adjoint DG internautes yi aussi di leen jox rendez-vous que tous les jours tout toutes les nuits surtout euh, ci durant Ramadan bi yëpp. incha allah nii lañ nar a ànd ak ñoom. partager ak ñoom li nga xamante ni mooy seen question wala li nga xamante seen suggestion la pour QG gën a dox comme ni ñu koy waxee rek télévision Futurs Médias day ñëw mm-hmm. ren dañ ci dolli li mooy numéro WhatsApp bi ñu partagé yenn questions yi nga xam ne mën nañu ko partagé ak suñu euh, invité yi nga xam ne dañ leen di dalal fii guddi gu nekk ci weeru koor bi Pape Cheikh di la gërëm bu baax yow euh, chaque jour rek wax li wax rek mais yaa ñuy gën a euh, jox confiance professeur wax na ko wax na ko léegi da ko junj chaque jour moo ñuy gën a yokk jom te loolu daf ñu ci <laughs> daf dolli doole pour ñuy gën liggéey gën jëm ci kanam comme ni ñu koy waxee dafa nëbbu yow nëbbu ñu de. <laughs> 77 442 29 16 moo moo moo defal lu rafet. macha allah macha allah c'est très joli Khalifa Mbergane ñu ngi koy gërëm bu baax merci beaucoup Khady Sy. merci beaucoup à toi Pape Cheikh c'était un plaisir partager plateau bi ak ñu ma ko partagé ñoom professeur oustaz Mamadou Mamed Ndiaye ak jigéen ñu ñaawul ñeeg Mamadou Ndiaye ak yow merci sonal nañ la torop ci liggéey bi mais yaa ñu ko sas donc euh, di di baalu ñëpp ak comme ni ko ma doo waxee baal naa leen yàlla nañu yàlla yàlla nangul ñu suñu koor bàyyi mer bi parce que tey tali tàngoon na trop donc <laughs> ñu bàyyi mer bi te xam ne xiif bi la rek ak naaj bu tàng yàgg 7 <laughs> heures mu mu jeex. Mm. et puis bu baax Ndéla pour coiffure bi moom mi ngi nekk Wakaam en face camp militaire bi. Mm. donc le téléphone c' est le 77 349 27 73 pour yére bi nag sama xarit sama frère Moustapha Couture nekk ba Touba lay jógee ñëw indil ma ñëw yi aw ma fayam marché Ocass la nekk donc euh, damay am plaisir sol ay ñëw ñëwam publicité ko 78 104 34 95 yàlla na yàlla wéral loxo yi ndax. xool nga may joxe li may joxe. amiin amiin amiin ñu ngi koy gërëm bu baax euh, Sophie kon euh, nga yàkkal ñu xëdd bi. ñu tàggu téléspectateurs yi. waaw Baye Cheikh xanaa di sant ak euh, di gërëm ñu ñu doon seetaan. Mhm. di jaajëfal euh, Sénico ak euh, NMA bi nga xamante ni ñoo ma dooleel sama biir waañ. di remercier aussi sama yaay maman Safiatou mu Safiatou si mu maam Maodo mi nga xam ne moom ma jox tissu bu rafet bi ma sol ko merci beaucoup maman à demain ci beneen numéro Baye Cheikh. macha allah yaayu soxna Oumou Khayri kon mu ngoog fii la ñuy jaaree jeexal quartier général bu tey bi di première émission bi ci saison bu bees bi dig daje gi ëllëg lay doon wala bu ca kanamee rek incha allah bu 21 jotee ñuy gërëm partenaire yëpp Kolim Dioum euh, gërëm tamit euh, Bàcc Dioum Keifa ci costume africain yi nga xamante ni boobu ba tey euh, fexe na ba def ko style fii ci Sénégal ku ne ngi ci kibaa yi et c'est magnifique lii docteur Massamba Gueye ne bu benn lëkk jógee lëkki ci topp yëpp ay yeneeni lëkk la voilà yooyu yëpp dafa jar a wax donc ñu ngi koy gërëm bu baax moom Bàcc Dioum ak personnel bu Keifa demain on revient ci quartier général Euh, émission bi nga xamante ni moom lañ leen di proposé guddi gu jot euh, ci euh, télévision Futur Média maire bu Dakar di Soham Wardini moo nar nekk invité bi merci à toute l'équipe de production dirigée par tonton Mac ak Pape Samba Thiam gërëm tamit Bouba Ndour mi nga xam ne normalement il était prévu mu jaar ci plateau bi tey waaye xam naa ni suba la ñu koy def bu ko defee moom itam mu jox ñu yenn ci ay mbir yoo xamante ni direction émission programme bu télévision Futur Média daf leen ko nar a jagleel ci weeru koor gi euh, bu euh, ñu ngi lay gërëm yow itam yàlla na suñu borom wéral baat bi gërëm la ci yar gi gërëm la ci disponibilité bi heure bu la nit soxlaa da ngay ñëw euh, bi ñu koy woo diggante démb la ak tey wallaahi fonk doomu aadama ku doylu na voilà dërëm ak million la yemale dem nañ bitim réew maak moom mais ku doyloo ngi nii li nga wax rek ku doylu koo xam ne bëgg doylu lool ba noppi am yar nag am yar wu macha allah yal na yàlla barkeel la amin amin jërëjëf amin am solo wallaahi wallaahi sax looy mel rek sa wéyjur meloon na ko wala mm-hmm. ku la mag mm-hmm. te romb na ko mm-hmm. donc man li may benn message laa am ci tànt yeeg fépp mooy mbir mi amul secret maa ngi dénkaat sama moroom yëpp ñu fonk seen ñaari wéyjur boobu moom fu ma mën a dem lu mu xat-xat dinaa ko wax mhm. ah di ci gërëm sama wayjur Adja Maguette Sène yal na yàlla guddal fanam mhm. sama wayjur Cheikh Mbaye Ndiaye Samb yal na yàlla guddal fanam dolli ko wér mhm. di woon ak sama yaay yi nga xam ni juruñu ma ci eh, seen wàllu meen waaye comme man rek bëri yaay xam naa muy AMS yenn saay sax nga tooñ ma waaye AMS samay wayjur yu baax lañ macha allah yu gore yoo xamante ni kenn ku ci ne ci ñoom bu sañoon jur ma Eh, wallahi azim mat nañu daanaka mille personnes. grand théâtre ñoo koy fees. macha allah waaw ku ci sañoon rek ci ñoom. Eh. jur ma mu mosuñoo xamante. Mhm. bëgg giñ ma bëgg dem nañ ba ñoom ñëpp bokk ndey ak baay. Mhm. kon maa leen di nuyu ci seen turu présidente mhm. ah, di woo sama fans club yëpp nag te Dame Seck jiite ko. ak Soxna Khady Fall. Eh, bu ko kenn tàdd ak mouvement aljamaariyel islam bu Chérif bu ko defee rek ñu ñëw ci Nala Sarafa. voilà comme ça ah, ñu tëjee ko Euh, macha allah ay gërëm ñëpp sant ñëpp équipe yi fi nekk depuis sànq euh, équipe digitale bi euh, Cheikh fay ñu ngi koy gërëm bu baax kenn du ko perngal ak Magui Coulibaly ak ñi mu àndal équipe technique bi Mass Ndiaye gërëm Amza Diallo fàttewuñu mbay Diouf of ak Djili Diémé ñoom Gomis ñoom Charles Lebon Abdou Karim Boni fàttewuma Nabou Aïs waa SSP ak équipe yu télévision Futur Média ñoom njool décorateur yi waa Lumière ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen jàppandal ak nii ñu euh, jàppee euh, ci euh, liggéey bu quartier général digital bi laa njëkkee Ndeye Malle yëg nga léegi ki ma tudd ci digital bi la nekk kookoy Cheikh Faye mu ngi jàkkaarloo ak yow n'est-ce pas donc ñu ngi koy gërëm bu baax fàttewuñu toog mu Serigne Fallou bugguma woon sax lim léegi maa ngi lim commencé naa juum mais c'est pas grave kon. Hmm? ak ñi ci des voilà donc gërëm naa ñëpp ak ñi ci des ak sama doom Omar Ka Omar nag papa ji euh, dafa décidé pour ñu ngéntewaat ko pour mu tudd Pape Cheikh Ka voilà <laughs> Omar nag ci ngéwelam nee na tant que valise bi ñëwul du soppi turam moom donc sa valise dina ñëw <laughs> Omar Ka sama doom waaw may wax ne ma nag billet grand théâtre yi disponible na voilà ci ban numéro téléphone ci Cheikh Ibou Camara 519 25 96 519 25 96 waaw ku ko woo rek mën ngaa teel nga récupérer sa billet bala li xewoon daaw di xew. macha allah 519 25. 96 96. et puis euh, reportage bi nga xamante ni euh, sànq bëggoon nañu leen ko tegal jagleel ko Marianne Siva euh, ëllëg moom la ñuy tàmbalee ndax mënul ñàkk dañu déplacé woon dem seeti ay kilifa donc bu ñu ko tegul du suñu coobare xam naa cat la rek bu xaw a dugg sànq ci technique bi en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp ñoom Khadija ak Yacine ak Henriette waa maquillage ñu ngi leen di gërëm ñoom Fifi ñu ngi leen di gërëm bu baax baax Vieux Diouf tamit ñu ngi koy gërëm euh, ak yeneen équipe technique yu nekk ci télévision Futur Média euh, euh, merci encore et à demain incha allah ñu jeexal ak Sadibou Samb rendez-vous ak moom ca Grand Théâtre le juin sa nabina nabina nabina nabina naa la sax gën ñi nabi gën ñëwoon gën ñi bëgg ñëw Mustafa sarafa way wi way wi yaa ko moom xayrul anbiyaa Mustafa naa la sarafa du ma tay di la way Moodu Abdallah yaa Rasulullah Mustafa naa la sarafa suñu mbir yee ngi mbir yee ngi ci na bi yow yaa ngi doxal doxalal la saara nabi yéena ko bëggam moo leen bëgg ay bëggante la Mustafa na la saara nabi yéena ko bëggam moo leen bëgg ay bëggante la Mustafa na la saara way wi way wi yaa ko moom xayrul anbiyaa Mustafa naa la sarfa Mansour bu damay nalaw ndax yaa ci doxal Mustafa naa la sarfa jooy naa borom Madinatu Salaam Seex Béthio dem naa cun man Bàmbe madinatu salaam Cheikh Béthio dem na cuun ma baambe la sarafa naala naala naala naala naala